Assalamualaikum, Presiden Baro neexula jot de mbaa defuloo dara si jàmm waa ndokkale ndokkale ndokkale mooy baat boobu english naan congratulation <laughs> waaw jërëjëf fan yëpp maa ngi lay taraay mënuma laa jot waaw si laa jokkoo sa soxna sax ñu mu ma da nga demoon Nigeria naka waa foofu mbaa defuñ dara waaw jërëjëf waa xam nga élection na si jam, wa yow euh, vote card ñaata nga ci yore ben, ngok lola la bëggon laaj kon xam nga ne réew mi réew mi ñoo la falaat réew mi yëpp ñoo bolo fal la baro kon lool sant yalla kon lu des mooy gur te nga yërëm ndaw ñi yërëm njabot gi ci réew mi wañi dund gi lool lu am solo la ci réew ndax réew lu neex neex bu dund amul wala dund ga ser metna, te dund gi nak seer na askan ñoom yobante man ministre of Jappé Moussa Diéné Gambian Talents waaw waaye li am solo nag mooy am na benn système boo xam ne bëgg naa ci waxtaan ak yéen politiciens yi waaye fexeel nga am ak ñoom jàmm élection yi jàll na jàmm rek moo des ndax réew mi jàmm moo ci moo ci lalu waaye léegi bari yow nga calculer maanaam élection yi ba mu commencé ba tey ñaata tisaat ah, ngeen ci liggéeylu tisaat boobu na ngeen calculer ko benn par benn xaalis boobu noonu ñaata la. ay million million million dalasi muy political party yëpp kenn ku nekk sa tisaat na ko calculer ndax loolu tey ji buñ ko defoon ci réew mi ñaata ndaw ñoo ci mën a liggéey ñaata lopitaan lañ ci mën a samp ñaata iskul lañ ci mën a tabax ñaata daara ñaata bërëbu liggéeykaay léegi yëpp dem na yaran dem na ci maali forom kon système politique yi bëgg naa ñi ceeñ ko muy political party yëpp nag muy yow muy Ousseynou Dabo muy Mama Kanté muy Khalifa Sall muy isa Fall muy Abdoulaye abubakar jamme yéen ñep système bobu cëñ leen ko di génne ay tiset defar ay tiset tiset yo xam buñ bu ko solé bu campagne bi jeexee ñu sané ko kenn dootu ko sol ñaata xaaliss lañ ci duggal lool man neexuma lool doxalu économie réew légui tiset bu campagne bi jeexee sané nañ ko mu ngi melni kon suñu xaaliss réew mi lañ wëlbatiku jëlaat ko sané ko ta ndaw yaangi tok amul liggéey bu ñu waxee ñu ne ndaw yi nanguñu liggéey ndaw yi am na ñu nangoo liggéey am na ñu nanguta liggéey waaye ñi nangoo liggéey na leen utal ay bërëbu liggéeykaay am na ñu jàng ba yëy seeni i kayit ba tey ji amuñu liggéey ñooñu tey ji ñu ngi def yeneen liggéey kon góor góorgóorlu leen ci réew mi te nag baro jàmm ji nga amoon bu ci soppi dara nguur nag day gaaw a soppi waaye bul soppee ko koo wax mu ne baro niti jàmm la ànd la yërmande